للمصطفى نويت ما يجدد سنة الخرائن أحمد aduna saa su musaa dem ba lëndëm koy yàqu lislaam tumuraanke ba dal di di ñu jiital am am ci xam-xam ñii jiital adduna ba fa fàtte ëllëg ñii topp seen bànneex ba fa fàtte seen borom ñuy topp seen bakkan ba fa fàtte bàmmeel ci jamono bu nemel ci la yàlla sunu borom feeñal cheikh ahmadou mbàkke maul xayaat muy xettalee ak dimbale ci wuuy di leen tàggat ak a wommat jëmale ci seen borom ci njàngaleem yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak Serigne Touba Khadim Rasoul ba tax na Cheikh Ahmadou Mbacké Maa-ul Hayaat di nemmeeku njaboot gi ci réew mi ak ci bitim réew mbokki jullit yi mbokki taalibe yi diwaanu xiyaarul muridiina fi xidmati xayril aalamina ci Espagne mooy woo mbokk taalibe yi nekk ci Europe yépp ci ndaje mi Cheikh Ahmadou Mbacké Maa-ul Hayaat di leen may di gaaw juróom-ñaari fan cooru mars ci atuma 2020 di amee ci kër Serigne Touba gi nekk Valencia ca Espagne adresse bi di Carrera de la Font d'en Corse 70 46 013 Cheikh Ahmadou Mbacke Maoul Hayaat dina fa def dénkante ak mbokki jullit ak mbokki taalibe yi ginnaaw bi nga xamante ni dinañ fa jàng alquranul karim jàng fa xasida ci mbokk jullit yi ak mbokki taalibe yi nekk Europe yëpp ñu ngi leen ko yëgal gaaw juróom-ñaari fan weeru mars ci atum أنا آخذ